dégg bàcc yi franchement couvre-feu bi nag arrangé wuñu arrangé wuñu nag parce que ñun restaurant lañ yor te lii ci lañuy ñuy dund ci lañ yaakaar waaw suñu parents yi suñu njaboot ñëpp ci lañ yaakaar donc couvre-feu bi fi ñu ko indi ci boppam moo ñu arrangé wu fañ ko defoon sax ñu ngi doon tane tane woon na mais vingt et une heures c'est trop c'est trop suñu sañoon daa ñu jàppale ñu ci bàyyi ñu liggéey parce que liggéey bi tamit ci lañ yaakaar boo liggéey doo lekk doo naan xale yaa ngi nii liggéey lañ am. waaw gars yëpp ñu ngi nii xale yaa ngi nii ay livreur lañ xale yi sax ñëwuñu presque ay bëri nañ waaw ñun ñëpp ay jeunes lañ dañuy liggéey nag léegi nag boo leen ñu terewee def tee ñu nag confinement léegi ñun bu ñu toogee suñu kër lu ñuy lekk lu ñuy naan lu ñuy fayee facture yeeg courant yeeg ndox yi. dañu waxante dëgg feebar boo xam ne bàyyi waaye plutôt un an booy yi tamit boobu léegi mënuñ la wan dara lu leer lu dul di la ko ay néeg ni ay néeg nii ngay toog di dégg ay mille cas cinquante cas yi wax yoo xam ne nii tamit dañ waxante dëgg quoi dama ne la feebar beneen xewoon fële na la caaroy dañ ko wane télé journal ñëpp di génnee sax kanamu gaay dem su hôpital bi di wane gaay nii ñëpp di ko gis comprendre nga lu ma lay wax mais la moo doon corona bu ñu bëggee maîtriser Sénégalais xoolal dama la boo ko bëggee wàññi wan ko lu muy gis xam ne lu koy rey mu xam ne lii nii xam nga la boo ko bëggee maîtriser wan ko loolu mais maanaam nañ ñu bàyyi di ñu fàddal di ñu naan non non mais lii doo xam sax barke alxuraan nañ ñu jéem a dimbale tamit quoi. ay couvre-feu dama ne lii xoolal na ñëpp génn bu ko kenn nangu man sax waxuma pour man de mais dama ne mooy maanaam am na ñoo xam ne ñaata nit ngay gis ñoo xam ne guddi gi la ñuy dawee seen dépense surtout yenn maire yuy jaay reer yi wala maygay wala ñeneen ak ñeneen te amaana ñoom loolu la ñuy jaay si la ñuy lois si leneen ak leneen te dèjà couvre la war a chaque jour benn wax na ñu dimbale waay. ah man de gënalu ma saa ku ma ku sànq bañ nangu bu dee ki kisal lu may def mooy nañ liggéey noonu rek continuer ku ci faatu nga xam yàllaa ko dogal ndax ñun a ah, man di liggéey guddi laa xam man guddi laa xam guddi laa liggéey. daanaka bëccëg dama ci liggéey sax bëriwul rarement la liggéey bëccëg gis mooy tëddee comme bu ma waree dépanne damay xëy ñëw garage tëddee nii dépanne bay heure yi ma dem ñibbi dama liggéey guddi laa xam wax dëgg di liggéey guddi laa ku sanc bañ rek nangu comme yàlla loo yàlla dogal nañ ko gëm rek xam ne yàllaa ko dogal nekkul seen cuuba rek yàllaa ko dogal xel bu yàggee xanaa fii ba 2024 wala 2025 xanaa dina jeex réew mi du Macky Sall Sénégal du Macky Sall Sénégal Sénégal u ñëpp la lépp luñ fiy wax wala lépp luñ fiy def dañ koo war a xam nga pàcc pàccee toog xam nga waxtaane ko ñëpp d'accord si mbala ñëpp xam nga ku si nekk indi sa avis quoi mais jékkee jékkee tamit indi waat couvre-feu te am na suñu maman yoo xam ne nii suñuy mbokk yoo xam ne nii suñuy yaay boo yoo xam ne nii wax dëgg si neex yàlla seen dépense Mbalajane lépp guddi gi lay mote à partir de vingt deux ay à de vingt heures ba huit heures du matin am na ñoo xam ne si la ñuy taxañ seen dépense bu ñu jógaatee seen kër bàyyi ko fa. couvre-feu bi c'est pour préserver la population parce que la population est un peu exposée les cas communautaires augmentent les décès augmentent alors que ñun ñoo war a jël suñu disposition le minimum c'est de faire les gestes barrières port de masque ak gel di ko laal. pour yàlla mun ñu si dimbale feebar bi nag ci àddina bi yëpp la c' est dans le monde entier fu mu ñëw Sénégal nag ñun on est d' accord pour couvre-feu bi ñu établir ko pour que la maladie puisse s'atténuer un peu parce que bu ko bàyyee noonu rek nit ñi respecté ñu geste barrière loo masque contamination bi day gën di bare. ku mal ne man tamit dina ma sonal tamit quoi ndax boo fekkee da ngay wàccee ay dix dix-sept heures oto bi xam nga tali bi xat na te xam nga. xamuloo ban heure ngay yegg waaw bu ñu la téewee tamit di toroxal la si yoon wi wala am ñu ne nit diw jàpp nañ ko fii boobaa dina nuroo leneen te ñu jël euh, bu ñu jàppee tam ñu ne kooku am na leneen lu mu doon doxi fekk da nga jugoon pour liggéey moo tax benn instant dinañu xaw a jaaxal quoi waaw xool tamit gars yi nan lañ si war a gën a mën a xool niñ si gën a mën a waxtaanee xool nan lañ war a mën a dimbalee jaam yàlla yi baax si trop bi moo xaw a gàtt ñu ñuy di liggéey te surtout nga xam ne ñun dañuy jóge ba Kër Massar di ñëw fii di xëy si waaw ñun ci loolu la ñuy kii quoi parce que fii 18 heures imagine 18 heures ak yoon bi muy xatee xam nga nga nar a jóge fii 18 heures pour ñibbi ba Kër Massar surtout Cambérène gi day xat waaw Cambérène bi caaro caarooy affaire yooyu day xat moo tax quoi loolu tax tam si ñaawlu tuuti waaw bañ ñu nag mënoon na jël coup fa mais mënoon na ko yokkaat ay 23 heures au moins sax dina fekk ñun ñu yegg suñu kër yi quoi waaw loolu de lañ doon ñaan comme parce que vingt une heure dafa xaw a xat ci ñun. mais ban ba léegi Covid bi daal yooyu yëpp dëgg la mais sëñ bi nañ ma dimbali rek métti na daal Macky Sall heure bi mu ñu jox metti na ma torop sama biir xol waaw ñu ngi nii xamuñu nu ñuy def tey moom braise bi sax xamuñu nu ñu war a def ñun waa au braise daal ñu ngi jooy daal. ñun daal ah, lii daal moom merci la arrangé wuñu nañu état bi jàppale daal wax leen. ba pare rek dàq nañ ñu. dàq nañ ñu ñun bi waaw na ko yokk. na ko yokk rek 21 heures arrangé wu kenn. na ko def ba 23 heures.